bismillah élection locale yii mbaa duñ ko ajaat waay le populaire de ñaareelu aj wa day lay ram ca ña gole jëm de te bu fa amee du fa gaaw a génn maar tey taali ah maa la ko wax Ibrahima a mu PIT ne man day ajaat googe waaw maa ngi cay tàccu kon d'accord naa ca waaw nekkul ne waa PIT kese la de déedéet ndax waa Bennoo Siggil Sénégal ci boppam waaw ñoo bind nag maanaam kon ab Dakar officiellement président de la république kon di Macky Sall daal di sàkku ci moom kat ñu daal di ajaat nag élection yi kon ba weeru novembre ca 2014 ah, waaw waaw au lieu ñu koy def kon ci weeru juin ci 2014 Mohamed Ayib Daffé bokk ci cadre bokk gis-gis yi waaw nee ga ca boppam fi mu nekk kon daa bëgg a soppi nag doxalin gi li yoon kon santaane bu ko defee mu mën a def kon ab ëllëg électoral maanaam maa la wax waaye nag jàpp naa ne yu nag jot na kon ngir opposition b yëpp daal di organiser nag mën a jàkkaarloo kon ak nguur gi malal tala bu yaana ci le populaire nee na yaana waaw d'accord uñ tey ëllëg nag ci kon ñu ajaat kon élection yii fuu malaat ne man sëkkii meneex li may merloo dëgg waaw la taafantaloo daal ne moo tax bañ bëgg nag maanaam ajaat élection yii mooy daal nee ñoo yaay dañoo bëgg daal ngandal seen parti bi massifier le parti au pouvoir ngeen ngeen ngeen patiti patata maître démocratique kon ci boppam la ñu nekkatul jàppale ne daal fi nekk nii ci wàllum fitna ki tiitalaat jaayum doole te la ne maître El Hadji Amadou Sall ca nee na day wane rek day wane rek ne gis ñi nga xam ne ñooy voté waaye ne xoolal mënuñ ci dara ba dara booloo dara kenn mënu ci dara laa lay ni lée danañu ñu jàpp daal la jàpp waaw mooy ab république politique seen daa mel ni kon ci la ñu ne parce que président Macky Sall mi lee président Mali ba woon lay nuroo léegi de ah waaw ATT Amadou Toumani Touré et puis seddoo bukki bi nga xam ni kon moom la ñu nimiku bii bukki bii njuur bii sàmba bii doomu bukki partage u gâteau lu dangereux la wóorul laa la wax laas ne gis nga maanaam wutum élection yooyee maire bu Grand Yoff waaw Mimi Touré Khalifa Sall lu mënul ñàkk la non face a face bi ci boppam face to face bi day am seen jàkkaarloo candidat gis ngeen ne léegi ni lée day wàcc kaat kon meeru Dakar gilée ah. dana tooyal ma yombi de dana raag de dana liggéey bay bëgg a dee libération yéene kay ne dossier Aïda Ndiongo ba waaw CBAO ati sari lii xeeñ laa ne neexul mbir maa nga yàqu xoolal ma gendarme yelaale wax nii ni ki démb kon danoo demoon ngir jëli nag directeur général bi ci boppam kon di Abdel Karim Rahni waaye day ba ñu yeggee lañ fa dégg daal mooy directeur ba dem na Maroc daar daar urgence la fa am Omar Faye leeral askanu ci tribune yéene kaay xam nga lan la ñu mënul nangu réew moo xamante ni nii maanaam lu waay neex def ba noppi te dara kaddu yi nga xam ne nag maanaam moom la Jean Paul Dias yëkkati ci kaw Aïda Ndiongue du dara lu dul am soxor woo xam ne tegu fenn nag laa la wax parce que Jean Paul Dias mi le du gendarme te du atekat du juge laa la wax comportement wii mu yor moom Jean Paul Dias affaire u iñaan la ak iñaañeteeg bon mbirum ko een la daal dégg ak wàllum fay wante rek revanchard njiital leeral askan wi ne Jean Paul Dias ci boppam sax daa mënul wax nag ci tolluwaayu réew le mësta passé zéro virgule cinq pour mësuñu ko woteel zéro virgule cinq pour cent laa ne romb Omar Faye ne moom Jean Paul Dias mi la bi mu nekkee directeur u am salaire woo xam ne kon jaarul yoon dégg Jean Paul Dias gudduñ tol nii la ko war au mu nekk ci Aïda Ndiongue naan Aïda Ndiongue sàcc laak yooyee na wax ci président Macky Sall mi nga xam ne ma nga ca Maroc gee di noppalu noppalu boo xam ne yow jamono joojee askan waa ngi ni torox a bi di Mayoro Mbaye moom day na kon doyen des juges i maa la ko wax de wuti na huissier ba di wan sax message yi xam ne kon doon nañ ko yónnee ca jamono joojee Karim Wade da nga ca kaso booba léegi ni le laas altine rek altine rek la gars yi di dem kon di ko visité waaw Aliou Sow demoon na démb ca rëbës seeti Karim Diané Diop demoon na démb ca rëbës seeti Karim moo nekkoon safaru Abdoulaye Wade frère ca rëbës kee seeti Karim Serigne Mbacke Ndiaye demoon na ca rëbës seeti Karim Abdoulaye Sow demoon na ca rëbës seeti Karim Toussaint Manga demoon na ca rëbës seeti Karim Semou Diouf kalobu la demoon seeti Karim Abdoulaye Racine Kane demoon na seeti Karim Assane Sène demoon na xam ni kon foofee la maamu Karim Wade mi jur baayam Seynabou Dabo fekk baax imaam ba demoon na ca rëbës seeti Karim Alaaji Basiru Sila waaw ak jarbaatam El Hadji Mouhamadou Sila demoon Karim Souleymane Traoré góor gi demoon na ca Rëbës Gaye seeti Karim Alinar Ndiaye moo leen dalal waaw yéene kaa gi ne Viviane Wade ni ki démb demoon na seeti Karim Wade ca mu nekkoon gise gu doy waar leen na doy waar kay ma nga ca wàllum yoon ba léegi ni le le populaire ne mooy syndicat gi leen njaboote surtis waaw boo sàgganee ci tas la jëm de maar day taali parce am na ñoo xam ne kat ña nga ca nee nañu nag boo sàgganee danañu organiser ab xeex boo xam ne daal moo am ci fukki junni ak ñaar ci ay milliards le soleil yéene kay ne liggéey ba nga xam ne na doon nañ ko xeex ak inondation yi day liggéey ba fa mu toll daal dal na xel ña seen xel dalul kay waaw direct info nee na mooy Baye Fallou Macky Sall yi Macky dalee na fàtte de ñooñu ñe la Souleymane Fall Boxum Sow Baye Mor Ndiaye Ibrahima a Macky dalee na fàtte liñ dul fàtte kay mooy àjjuma dem naa ca lamb jë ne Modou Lo ak Eumeu Sène li ci wóoragul a moodloo day ñeenti at a ngi nii déggul muñal daanuwul ëma seen juróom-ñaari at a ngi nii déggul muñal daanuwul tribune soox ne ëma seen waaw est que mën naa nax na kii di xarañ loo <laughs> alaaji man day résultat bi rek laay bañ joxe may ëpp buum tama te yow moom léegi lu yàlla xam doy na du ma la wax lenn lu dul alaaji tëjal